Moustapha jamono ji gis nañ ni euh, daal di nañuy démolir li nga xam ni mooy bâtiment bi nga xam ni mooy abrité woon marché Sandaga tey yéen commerçant yi lan ngeen di xaar ci boobu la démolition après. waaw démolition boobu ñun ñoo ko bëggoon parce que marché bi 2013 la la koon 25 octobre 2013 bu mu lakkee am ñu fi ñu fi jëlee woon ñu nekkoon ci biir ñu jëlee leen fi yóbbu leen champ de course ñu dem ba de 2020. Euh, ñeneen ñi fi desoon mooy nekkan alentour ak ñu nekk ci territoire bi ñu jël leen yoo aussi ñoom leen centre course bi bi démolition bi euh, bi mu lakkee aussi dañoo demoon ci chef de l'État wax ko ne ko pour mu liggéeyalaatal ñu marché Sandaga ñun ñoo defoon demande boobu ba mu demee tamit mu recevoir ñu effectivement promettre nañu dana ko liggéeyal dana ko liggéeyal dana ko dana def liggéey ci moom ci xaalisu boppam ah, ah boobu baag léegi nag euh, ça fait presque un an et quelque biñ taaneelee marché bi ak léegi boobu ak léegi gisuñu dara léegi bu ñu demee ba benn moment. ñu gis ne liggéey bi tàmbali na ñu koy defar ñu dem ba ci biir ñu gis ay tiraillement entre ñaari maire loolu daf ñuy xaw a jaaxal parce que tamit ñoom li ñuy régler xëy na c'est purement politique mais ñun de ay liggéeykat lañu te dañ ñu fi jëlee ba depuis boobu ba léegi ñi nga fii gis ñi yëpp ci territoire bi ay cantine magasin la ñu yoroon fii léegi ñoom ñëpp tey ñi ngi nii dañu sonn ñenn ñi amatuñ sax lu ñu yoree seen kërit dañ ko war a yore te koo fi gisoon tey ci ay conditions yu baax la nekkoon léegi nag su dee loolu am na ñu dem ba war a liggéey liggéey bi parce que ñaari at ñu toog di xaar ñu dem ba war a liggéey mu am benn guéguerre entre maire ki naan maam moom kii naan maam moom li ñu bëgg kon mooy le chef de l'État mi nga xamante ni projet bi ñoom ñaar ñëpp du seen projet projet état la parce que état moo jëloon ne moom mooy defar xëy na dossier bi dafa dox dox dox ba egg si Aliou mais du woon mooy premier bi parce que euh, Abdou Karim na moo ko njëkk a yore mu jóge si moom mu dem ci ministre commerce euh, Sarr moo nekk léegi tourisme jóge fi ci moom dem ci Assome Diatta jóge ci Assome Diatta doolu ñëw ci euh, Aliou Ndoye kon moom projet bi ñoom ñaar ñoom dañuy defar mais projet ta la kon li ñu bëgg chef de l'État arbitré arbitrage bi nag mooy mu euh, mu siffler la fin de la réclamation comme ça léegi liggéey bi demandé parce que ñu sonn nañu. ñun moom crise donc lañ ciy jëlee ndax liñ ñu waxoon defuñu dara bu ñu fi jëlee Sandaga dans quarante jours nañ commencé démolir marché bi tabax loolu lañ ñu waxoon. te yaakaar tey ñu ngi si un an et quelque kon ñun seeni wax ñun gëmuñu ko waaw ndax li ñuy def yëpp affaire du du affaire état sax affaire banditisme rek la ñuy jaay ndax ñoom tey waruñu woon a yëg ci fii ñoom da xëccoo ndax Abdou Karim Fofana ak Vardini ak Alioune ñoo daan ànd di ñu convoqué chambre de commerce ay gouvernance ñuy waxtaan ak préfet de Dakar Alioune Badara Samb ak commissaire yi ñëpp toog ñuy waxtaan. ñoom ba ñu xamee ñoom déggoowuñu seen biir war ñu woon a toj marché bi toj fii def ñu ay def ñu ay victime ñoom ñëwaat bi fii léegi ñoom di ñoom di amaat coow kon noo ko mën a tuddee affaire u banditisme la ñoom ñëpp gëmuñu ci kenn muy Abdou Karim Fofana du wax dëgg démb ñu ko invité ci télé bi ñoom ñëpp boo ko yem ndax li mu waxoon état moo koy defar tey mu naan ay maire ak kii moo ko war a gañe kaawur ko gañe kon ñoom li ñu def mooy affaire u wëyu la ñuy def dañoo nañ leen fi jëlee pare léegi séddoo nag wi léegi nag affaire banditisme nag bu séddoo amee séddoo ñoom la ñuy coowee. 74 laa fi nekk jamono Senghor boobaak léegi nag mag moo fi fekkoon kenn desut fi ñii faatu na ñii tooxu nañu ñii mënatuñoo liggéey fi ñu toll daal bés na tey jii ma lay wax ak fi may wax yow bâtiment bii ñu daaneel ak fi ma toog maa la fi mën a wax bitig bii diwa ko moomoon cantine bii diwa ko moomoon amatul nen na mag mu fi desate ñépp ñii bàyyi nañu ñii ñibbi nañ Touba ñii faatu nañ ñii mënatuñoo liggéey maanaam maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax pied bii saat karos laa fi nekk ba tey naar bu moon bitig bii moo ko moo ma joxoon fee fee la ma joxoon ki ki nga xam ne fii moo ko moomoon ba mu dem ñu wax Touba si mu jaay ma ko saat karos ba tey maa ngi fi ah boobaak léegi nag taraanga ju am naa ko fi maa ngi fi sutur la taraanga ju ne am naa ko fi sant naa fi yàlla bu baax a baax bu baax a baax lu ne traversé na fekk ma fi ma sant yàlla ah bâtiment bi nag daaneel nañ ko maam ni sa place bi ba ma ko liggéeyee ñàkk naa si lu ma téeméeri junni yi topp daaneel nañ ko yàq ko lépp gis nga fi mu léegi taabal si ma toog te pied bii amoon naa autorisation sa jamonoy Senghor ah, waaye nag lépp moom bu ñu defaree rek ñun defar lañu bëgg bu ñu defaree daal dellooñ suñu taabal sant nañu yàlla sant ñoo ko defal itam waaye nag bu ñu yàqalee ba noppi joxuñu dërëm bàyyi fi ñuy dundu wereyaan fa la ñuy yóbbu woon sandi course baaxul kenn newu fa fi du dund wereyaan rek la ñuy dund da nga fi toog suba jant so doo jaay dara waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax man sant naa yàlla bu baax a baax bu ñu defaree marché bi moo ma gënal joxaat ñu ko mu fekk ma fi moo ma gënal suñ ko defar itam abata ñu bàyyi suñ bopp yàlla rek di bàyyi suñu bopp yàlla rek. xanaa contentement rek ndax li ñu waxoon mooy dinañ ko liggéey bu soobee yàlla dans deux ans bu ñu paree yéen ñu fi nekkoon les ayants droit ñu delluwaat leen ko kon nag lu ñu lii euh, espoir de espoir de de de jubilation la rek espoir de jubilation la ñun ñëpp waaw ndax lii lañ mos a bëgg ñun ku ñu defaraatal delloowaat leen ko ñu fi nekkoon les ayants droit. depuis qu'on à ah, euh, terrasser le, le, bâtiment. On a, on a dans les côtés, il restait les sardines là ñu ne Nous ñii ñoo ko moom ñii ñoo ko moom mais comme que nous nous sommes loin du bruit on des écoute léegi nag tout dernièrement ces jours-ci si sont venus avec euh, ñëw nañu ak seen euh, le seen machine commencé daaneel ñu ne qu'est-ce qui se passe ñu ne il maire de la ville moo bëgg a jël réserve bi parce que marché bi ci ci ci ci réserve Senelec la bokk alors def ko bëgg ak parce que ça fait partie du patrimoine di de de Dakar léegi ils ont décidé de prendre euh, le partie en question ñu moomal ko Dakar ñu jox ko maire de dakaar pour liggéey ko nu ñu surtout lu ñu bugg rek mu ñu liggéey ko parce que bu ñu ko liggéeyee au moins wuro dëkk bii dana feex mais bu ñu ko daanalee ba léegi la situation n'est pas euh, baaxul nit ñi ni ñuy doxee baaxul lu ñuy liggéeyee baaxul kon lu ñu ñun suñu bonheur mooy ñu defar ko bu mu rafet ñu bàyyi ñu liggéey liggéey bu baax c'est tout hein est-ce que tey di euh, démolition bi nga xam ni am na fi tey du décréter la mort de Sandaga au contraire Sandaga c'est un marché boo xam ne bii marché capital la boo xam ne bii vraiment képp koo xam ne ki yaa ngi ci Sénégal dégg nga Touba Sandaga kon kon kon lieu d'espoir la waat pour ñu ñu ko waaw est-ce que jàpp nga ni euh, délai bi nga xam ne moom lañ leen wax ni dinañ ko defaraat Euh, jox ko les ayants droit comme ni nga ko waxee sànq dinañ ko mën a respecté. ah waaw waaw yaakaar nañ ko de ndax euh, ñun ñu ku ci ne jaar nga fa nga war a jaar boo war a mën a euh, am des garanties yoo xam ne wóor na la ni bu ci bu paree dinañ la ko jox muy fu ci kilifa diine fu ne war a dem dem nañ fo pour que ñu am des assurances pour que su paree ñu ci nekkoon en même temps ñu delloowaat si leen ci loolu daal am nañ ci yaakaar. bu baax la ñu am weesu na am loolu parce que amu fu ñu dugg ku ne yaa ngi talmi talmi ñu nu jox c'est un lieu boo xam ne dafa enclavé wu doo gis client c'est trop enclavé même boo fa duggee sax pour retour sax nga jógee fa sax tu as tu as avec d'énormes problèmes nga fay nga fay jógee. waaw loolu sax mën nañ ko def ndax moom ki nga xam ne da ngay liggéey te yow te sa population bi fi nekk bëggoo leen lii rek wane na ko ndax pour man booy def préparatif pour jëlee fi ay nit. yéen ñi nga xam ne yéen ko seex ngeen nekk état maire de ville maire de Dakar ak ministre yéen ñëpp yéen ko seex yéen yeneen état war ngeen a woon a waxtaan ba déggoo seen biir xam kuy defar ngeen am plan tey bu ëllëgee tey jii nga mën na kon tey jii ñoom dañu duñu am problème mu coow lii waaye booba ñoom nañu àndandoo doon say ba jëlee fi waa Sandaga yëpp léegi ñoom ñu lijjanti seen problème. tey ban victime moo ci am ñun ñooy les victimes jënd sa place liggéey ba sonn am sa magasin naa ngi woon fi 4 met carrés ñii tey yor seen place ñii tey dee nañ maa tam ñaata fi dee doo toog un mois te amul benn mort wallahi al azim nit ñi AVG ñiy wéruñu ki yoroon am tey mu yor li ah ñoom seen bi ñu ngi dox ndox ñoom ñi ngi liggéey ñi ngi fayeeku kenn kum ci doon population bu ñoru la sa bopp rek moo la ñor at ñun na commerçant yi moom ñoo problème mooy ñi administration yi moom wax dëgg yàlla seen xaji kër yi sax lañu ñu gën a respecté commerçant yi muy Alioune Ndoye muy Abdou Karim Fofana muy Vardini ñoom ñett ñëpp ak Alioune Badara Samb kenn du sox dëgg. Euh, loolu man dégguma ko l' essentiel que toujours lu may dégg mooy le maire de la ville de Dakar lu ma son engagement lu ma bëgg ci xolam parce que moom dafa bëgg Dakar. le, la ville de Dakar c'est-à-dire que le bâtiment concernant Dakar reste toujours Dakar moom loolu la jëloon depuis bu ñu demee présidence gis président jog ñu tout le problème pour tout le programme pour ñu defar euh, la ville de euh, le marché de Dakar loolu moo nekkoon ambition am ñu defar ko parce que bu ñu ko defaree loolu mooy ambition Sénégal quoi parce que euh, marché Sandaga ñëpp xam nañ ko bu ñu ko décalu décalu euh, dindee dindee dindee euh, bu ñu ko dindee tey ça sera encore beneen affaire la ñun moom ça ne nous arrange ñu defar ko ba mu rafet ñu liggéey continuer suñu liggéey loolu mooy suñu ambition. ñu ne dañ koy defar ci diirub euh, ñaari at ndax jàpp nga délai boobu dinañ ko respecté ngir mën leen a joxaat seen marché. ñoom ils ont toujours des prononciations des pronostics à faire ñun nu mu gaawee ñu defar ko bu mu baax ñu liggéey moo ñu ginal moom. non loolu ay wax la parce que loolu mënuñu ko xalaatuñ ko sax fii marché bi su ñun ñoo ko moom lu leen neexee nag mun nañ def ay cantine plus ay magasin plus def li bu cent waroon a nekk ñu def cent cinquante bu deux cent waroon nekk ñu def deux cent cinquante mais marché bi mënuñu fexe ba ñi fi nekkoon duñ fi nekkaat keneen dootu ko def dara lu dul marché kooku c'est pas possible parce que lii nii ay gaz ay garantie la parce que ñoom duñ tenir parole devant tout le monde ci sénégalais yëpp ñëpp di dégg ñu ne nañ jóg ñu defaral leen ñun ñu ñun bul yaakaar ne ñun dañoo kii dañoo dem ba ci chef religieux yi devant tous les xalifa généraux yi nekk si dëkk bi wax leen ko ñu ñoom it ñu ñu appuyer ñu ne ñu kon dañ leen defal jóg leen ñu defal ñu après ñu ëllëg ñu koy def leneen xanaa ñun dëkkuñ ci dëkk bi loolu mun ta ne. loolu lépp daal lu ñu ci mën a ñu sant yàlla rek waaye daal li ñu gënal ñun liggéey jox ñu suñu marché ñu liggéeyaat bu ñu fi jëlee itam ñu xam ne ñu ñu wàkkiru si yàlla rek. ak sëñ Touba sëñ Fallou mi fi ñu ñaanaloon rek fii ñun talaa gi ñu fi am la moo ko ñu moo ñu ñaanaloon moo ñu ñaanaloon mag ña demoon sa ñaan nga ba tey mën naa la ko limal ñëpp boo ma démb saa mën naa la limal mag ñëpp kuy dund ku fi des mën naa la ko wax ku ñu faatu mën naa la ko wax ñi fi dund nag di fi des bëri Touba am na ñu fi des ba nag am ñu nekk Ndakaaru am ñu nekk Touba am ñu nekk Louga ah, ñoo xam ne ñii nga njaareem ñoo xam ne fii ba fi sëñ ba fi ba dem ba ñu dem ànd ak Amath bu Amath Dieng alaaji Amath Dieng bu Tilène yàlla na yàlla xale ko àjjana moo ñoo ma àndoon dem sëñ Fallou fekk ko ndindi sëñ Fallou ñaanal leen ñu suuf si fee fële ko daal sa ponti ba marché Tilène lépp sëñ Fallou ñaan ko xéwal na fi barke na fi booba tey ku ne sutul na fi borom borom alal ju la génn na fi Sandaga sant yàlla daal lañ def bu ñu fi bàyyee sant nañ yàlla bu ñu fi jëlee sant nañ yàlla rek bàyyi nañ si bopp yàlla ak yonent bi sëriñ Touba rek ak sëriñ Fallou bi fi ñaanam man daal gëwuma leen ndax nit moom bu la waxee sa début ba mu nekk lu dul dëgg leneen loo gëm tamit dalaa neex ndax nit moom ay waxit démbam day day nekk ay waxi tayam nga mën koo comprendre waaye ki nga xam ne waxi démbam jubul loo koy gëmee ñun daal lu ñu gis xam ne moom lañu gis waaye wax digg yàlla ñii moom ñun gëmuñu leen waaw ndax ba tey jii ñi yaa des problème ndax ñun ba tey jii amaguñu fu ñu sukkandiku tey jii ak fu ñu taxaw waaw ñun fi mu ne ñu ëpp problème ñëpp waaw ñun ne ñun fi mu ne ñu ëpp ñëpp lañ waaw ñu ëpp problème ñëpp ndax yow tey jii marché bi ngay defar tey woo commerçant yi wax leen plan bi ngay defar waxoo dara yaay toj. yaay indi yaay defar ñun xamuñ dara boo ñu joxee baax na boo ñu joxul tamit bàyyi leen ak yàlla. construction bi di deux ans lañ ko wax ndax jàpp nga ni diir boobu rek mën nañ ko fee yembal. waaw xam nga loolu ñoom projection la ñoom ñoo ne deux ans. ñun bu ñu sañoon sax du mat loolu parce que c'est on a l'attente est trop trop trop trop durée bu ñu yàggoo bu ñu sañoon du du du mat loolu mais bu ko bu ñu ko defee ci deux ans baax na parce que vingt quatre mois ñoom la ñu waxoon mais Aliou Ndoye li mu ñu promettre nee na moom dana jéem a fexe ba mu nekk ci dix huit mois c' est à dire un an et demi parce que euh, euh, li li pour bu gagner du temps bu ko defee muy liggéey euh, jour et nuit xam nga ñun lu mu gën a gàtt baax na mais même bu bu dul loolu tamit bu ko mënee l' essentiel ñun li ñu bëgg mooy ñu liggéey mu gaaw ñu jëlaat suñuy place. Ah, ñu dimbali nu rek bu yeggee ñun ñëpp kenn ku ci ne ñu delloo war la sa place waaw ndax. Sénégal ku ne xam na ni moom euh, euh, comment dire encore les les les les gens yi nga xam ne amuñu liggéey lii mooy seen mooy mooy seen sutura te kenn ku ñu responsable de famille nga. dawata ndiwut xaalis waaye nag nit ñi ñu jaay moom amatu fi ndax kenn mënu fi kenn jaaratu fi kenn jaaratu ba noppi tam fii ñu bëgg koo sakk buñ ko sakkee gën ñee rayete man daal bu ma sañoon ñoom ñu miir seenu miir defar te mu gaaw ñu suñu place. bàyyi ñu ñu toog di fortaat ñu toog fii fortaat di fi dund di fi sant yàlla di fi jaamu yàlla ndax 60 ans foo ko am fu ne xam nga ne dootoo ko fa te dootoo ko fa boo déewut itam da ngay bàyyi. coow am ci ba am ñenn ñenn sax jàpp ni dañ leen fee bëgg a jëlee moo tax ñu daaneel marché bi ngir délocaliser leen délocaliser leen ngir rek daal di mën a ci dakaar daal di fexe ba dakaar feex loolu noo ko gisee.